بسم الله واخي سرين بي تي جيبلو اك جيبل سون بروم واخنا تي القران اسقال له ربه اسلم بو مي دون واخ قنتك سيدنا ابراهيم عليه السلام قال اسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم نينا سرين توبا خاد له الله مختار له بمي جانغال الفيت بن مالك باك باك سي فعل قياس مصدر المعدة من في ثلاثة ka ردة nee nañu daa mel ni àll da ko dugg wax ko ca kaw sànni téere ba ni yéen ñi yaakaaru lu dul am jàng dem leen seeti keneen ku den jàngal man jàngaleetuma daal di wax ni bawuma sax njàngale waaye dama bàyyi njàngale nu aada te mooy dikk fépp sëriñ àllarba ak diber lu mu la digal bu la def bu la ba nee na loolu laa mënta àndate kenn léegi ku bëgg a ànd man day boole ñaari loxoom fas ci xolam ni ma aslamtu nafsi ala yadek loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko wax nañ ni sëriñ Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaara lahu mas naa ñëw ci moom ni ko tey dama xëy si ngir mbir serimbini ko mbir moome nu mu deme mu ne ko dama fas yéene jébbala sama bopp ci zahir ak ci baatin nee nañu sëriñ bi ne ko jërëjëf ndaxa mustapha seedal ci yàlla ni loo lii bëggoon naa la ko sant ba nga ko defagul waaye bu ma la ko santoon li muy baax baax def gii nga ko def te santuma la ko moo koy gën mustapha bul sikk ni lii nga def boo ko defutoon doo doon dara mm -hmm. waaw kon nu ma gën mën a xamaat bu baax ni yoonu yoom yoonu jaayante la am na kenn ci mbokki sëriñ bi ku mas a ñëw ci moom ci njaarim ni ko jébbal naa la sama bopp sëriñ bi santu ko ni ko lëf dafay nekk loo xam ni sañ sañu ci cee jëfandikoo lu dul jaare ci bunt bi nee na mu ne ko booy dellu nga aw ci wetu kajoor gi ba muy dellu wax nañ ni fu mu aw ñooñu jébbuloo nee nañ sëriñ bi bi muy waaj a gànnaar wala bam fa jógee bay ñëw la yebal Moodu Absata muy woo maam Cerno nee na boobu booba nee nañu ñaari taalube képp la yoroon moo tax mu ne la ci leeral day mel ni sëriñ bi day am waxtu muy nam mbooloo topp nit bu agsiwul kenn du ko topp wallahu alam sëriñ bay jaxate sëriñ Tuubaa xaada lahu llaahu maxtaara lahu mas na ko booleeg ab taalube mu natt ko mu daw mu ñëw wax ko sëriñ bi mu boole ko keneen mu nattu ko mu daw mu ñëw wax ko sëriñ bi sëriñ bi ni ko diw nit kenn du ko sol niw dàll di ko dëgge ay ñàkk nit dañu koy masla mu ne ko loo wax noona la waaye xam naa sama digg ak yow moo des ndax ma ndumbe dana def ay ñoñam du weesu lii may def te teewul ña nga fa sëriñ bi ni ko wax nga dëgg de danaa fa def mag ñi noonu ñu xamoon waxin ak sëriñ bi sëriñ bi ni ko wax nga dëgg de danaa fa def lu fa dul jug moo tax ñu ne wax nañ ni ginnaaw di mbooloo ma mujj na bari lool ba mujj mm, muy wax ku julli siwul nañ sempi ab néegam yóbbu ca biti ca biti dëkk ba ba ñu ngi woon ci ak njébbalu sëriñ bi mas naa yónni sëriñ Ibrahima Sarr radiala anu ci soxna maam ja ture bam demee ba ñëw neenañ ca la ko way way yu siiw yooyu di ko ca sant muy jësaaka yaa xillu ba waye jeex ni ko dama fas yéene kuy àndateeg man dangay jébbalu mu ne ko luy jébbalu sëri bi ni ko dangay wax jébbal naa la sama bopp ngir jëm yàlla ak yunt bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sallama loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko mu wax ko sëriñ bi sàkk euh, nee na mu wax ko sëriñ bi sàkko faatixatul kitaab wér na waaye it nettali bi am na ay wuute yu bari mas na am ku ñëw ci sëriñ bi ni ko dama ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk ñàkk ndijaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñëw fii fii yow ngay sama ndey di sama baay di sama ndijaay nee na ñu sëriñ bi wax mbooloo ma na ñëpp jige si bañ kër-këre ba ak si sëriñ bi ni ko njool waxaatal li nga waxoon mu baamu ko sëriñ bi ni ko noppi nga mu ne ko waaw sëriñ bi ni ko déglul lii ma lay bëgg a dénk danaa la booleeg ñoo xam ne danañ mën a wuutu ñii nga ñàkk te boo de boo te boo defee lii ma la wax du ngeen tàggoo daal ni ko dikkal dellu boo demee nga def jaamu yàlla muy sa baay def liggéey muy sa ndey def doylu muy sa ndijaay tey siyaar si waaye loolu dong jërul toog fi moo tax sëriñ bi di leeral ni la nettali bi mel na ni mooy bi gën a mat day am ay wuute léeg-léeg ne moo tax waxul ci ak njébbalu ak jébbal waaye daa sësëg bii may bëgga nettali te muy wax ci Jebulu ak njébbal benn jotaay bi la wallahu alam neena ginaaw li am keneen ku top si ni ko dama bëggoon a sëriñ bi ni ko ha ni ko dama bëgg buma ma ba nopi loo digal ma def ko loo ma tere ma bayiko ko sëriñ ni ko mo gën ana mbolo mi nek fofu jige si den ñu ñew mu ne len ki da am lu mu wax ni ko waxal li nga waxon mu waxat ko sëriñ bi ni dama bëgg ngeen yëg ni jébbalu ay wax dong la dégg ngeen daan ni leen dégg ngeen lii ma wax ñu ne waaw sëriñ bi ni boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko nee na mu ne gees ni kilifa yi dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ni loo lii waa ji waxoon sëriñ bi ni leen dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébbalu ci yéen dama bëgg fu fi as gor bàyyi ko te fi yow su ko la dama laa jébbal sama bopp ngir yàlla ku la ko wax na nga sàmmonteeg moom baat boobee mu wax ba fa ngeen mën a yem bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla di leen tere ngir yàlla lépp lu ci di digle na fekk mu sax ca lépp lu ci waay di tere na fekk mu bako dama bëgg ngeen yëg ni góor yi ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu boroom boroomam nanguloo ko fasaasa du ko sañ a bañ koo ci digal ko ngir sa bakkanu bopp dong nag bakkanam gàntuloo ko dama bëgg ngeen yëg ni as gor du ragal du dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne day jomb ragal boo koy def la ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal ruus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus daal di wax ne nag jomb nag ci si diit lay nekk ak deret dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmut loolu laa leen di digal mboolem askan yi may tuddoo ak bokk yi nu waay mën a tuddoo ci man lu waay mën a doon ci man dama bëgg ngeen yëg ni lu waay jàpp ni man nga ko ci man lum mën a doon te yor jikko joo xam ni ku ma dégg ku ma déggoon di ma seetsi bu ñëwee ba gis la day wàññiku ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam ne woon dootu ko jaral ak si fi man kookee lu mu mën a doon ne nag loo defee ni doon nga ko ci man nga rongi ci sun kanam boo xam ne du jàll te àdduna maag yow nee na mu ne ngaroo ci sunu kanam boo xam ni doo jàll te àdduna maag yow na eh, wolof la nee na xëy na muy xëccoo wallahu taala alam sëriñ bi nee na taalibe yi saxaabatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ñooy seen bàyyi diine wér na lool am na koo xam ni mbokk la ci sëriñ bi te xoromu woon lool daa ñëw bés daa ñëw bis ci sëriñ bi ni ko dama seexu gut te dama bëgg a seex nee na sëriñ bi teg kaala gi ci gémmiñam muuñ tuuti ni ko loo ma defal lu jar seex mu ne ko kenn defalul la seex moom yaa koy def ci sa coobare te dama bëgg a seex nee nañ sëriñ bi ne ko xam nga sax luy seex mu ne ko déedéet mbàkk damay wax rek sëriñ bi ne ko boo xasee seexlu lu bon kenn gënatu laa seex ci la ca des nag boole nit ak nit la loolu mën naa ci lul julli ñaari rakkaama ko gën a jafe daal koy wax kilifa gu ñuy wax Abdul Xaadir Jeylaani yu ak Junayd la yàlla mënoon ñu mën a boole kenn kenn boobaak léegi ci man mii la ko def defaatu ko ci keneen te li ci man mënuñu ko waaye dikkal ma wax la seex googu ngay wax li nga jublu ba di ko wax lim làmbool mbooloo mi ma yebal fi yéen dama bëgg ngeen xam ne luñ sax-sax da ngeen tàggoo luñ sax-sax sax da ngeen tàggoo luñ liggéey liggéey itam seen bopp lañuy liggéeyal kenn ku bu xëyee lum liggéey ñu def ko ñu def ko fi keesam mu ne kenn ku kenn ku ne bu xëyee lum liggéey ñu def ko fi keesam daal di wax ne lu ngeen yàgg-yàgg ñoom it jëriñoo def wéttal daañu leen romb bañ jeex tàkk daañu leen rob bañ jeex tàkk ñu rob la te du ngeen bokk bàmmeel sëriñ bi mas naa woote ñëpp daje mu ne ñi di seex laa soxla masamba ndax ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp ñëw nañ mbàkke sëriñ bi ni yéen seex yi dama bëgg a waxtaan ak yéen tuuti dama bëgg ngeen yëg ni gor yi ma leen booleel su ngeen toogee ca kaw ñu toog fi suuf di wuyoo seenu sant mel ni jigéen luñ liggéey jox leen luñ jur jox leen boole kooku jooy di ñaan ngeen yàgg nekkuñu ci yéen ci seen bopp lañ nekk daal di wax ni fa ngeen di demee ba yëg ni jaam yi seen bopp lañ doon liggéeyal na fekk ngeen liggéeyal seen borom lu ko may da ngeen am mbett mu rëy yéen cheikh yi daal di wax ni nii ngeen mel ci biir nit ñi xam ngeen nu mu demee ñeen ko déedéen mbàkki sëriñ bi ne mi ngi mel ni ku am gaal gu rëy ci dëkk ku ne xam ne gaal gi rëy na rafet na lu waaye xotti dikk dénk la ba bisub xew jot ku ci ne dikk taxaw ni la jox ma sa mbubb ma te defoo ci woon aw sagar looy dese lu dul xottu gaal ñu ne ko waaw mbàkki sëriñ bi ne xottu gaal nag waajul kenn déggugul daje ba ca ngoon di wëcce gën a rafet nga gaal waxi sëriñ bi ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum inda allahi atqaakum sadaqa allahu alazim sëriñ Tuubaa mas naa wax xam ngeen farloog fayda ak fulla ñu ne ko déedéet mu ne farlu mooy looy def sàkkal ko waxtu su waxtu wa jotee dara bañ la ko cere def fayda mooy loo xës tàmbali ngir yàlla néew doole bum tax nga dellu ca gannaaw ko ca yalla te yaakaar ca ndimbal fulla mooy fulu baax yam nga yam fa wér na lool sëriñ bi nee na dénk naa leen ñaar bu leen ko ñetteel liggéey ak jaamu yàlla àdduna lu ngeen fi gis lu mu nuru nuru dara sutura rekk la dëgg dëgg teraanga àllaaxira la am ku bëgg suturas aduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg ngay àllaaxira da ngay nangoo jaamu yàlla mas naa woote wax ni ab jaam nit ñetti yëf moo ko war ak boroomam gëm yàlla ragal yàlla topp yàlla daldi wax ni ku gëm yàlla ngay nangu ay dogalam ku ragal yàlla ngay bàyyi ay tereem kuy topp yàlla ngay jëf ay ndigalam na ngeen xam ni yàlla mii li muy bëgg-bëgg ku def lu baax ko bàyyi lu bon ko ko gënal te def lu baax ak bàyyi lu bon dañoo niroo te bokkuñu daal di wax ni fi ne mëneef nay def lu baax waxtu wune ne nga di ko def te du la taxa bàyyi lu bon waaye waxtu woo bàyyee lu bon yaa ngi ci lu baax Sëriñ Fàllu moom Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na sëriñ bi mas na leen a woo ba ñu agsi mu ne leen baax rekk laa bëgg ngeen def ko ndax leneen lu ngeen fi saytu lu dul baax ab a leen ko ëpple te ab kàccoor lu mu bari bari de du am lu baax waaw nee na mu ne leen baax rekk laa bëgg ngeen def ko ndax leneen lu ngeen fi saytu lu dul baax ab a leen koy ëpple te ab kàccoor lu bari la bari le du am lu baax sëriñ bi nee na jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla dañoo dend te bokkuñu jaamu yàlla ay cëre koy def liggéeyal yàlla nag ci mbindeef yi lañ koy def yal nañu yàlla boole dimbale ñu xéewala ñu ñaar yëpp ci barkeem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa